tax ñu woon presse bi tey nag dañoo bëggoon a wax ci li nga xamante ni amoon na ci altine bi weesu muy accident boo xamante ni kii di Cheikh Amar di xel Xelkom def na ko ci bi muy dem ci màggalu Sëñ Abdou Khadr fi tolloog Jurbel ci autoroute à péage bi euh, def ko ci côté 18 ma nekk Touba ñu woo ma téléphone chauffeur ci boppam woo ma wax ma accident bi ma ñëw li ñuy njëkk a def rek mooy naqarlu li nga xamante ni mooy yéexaayu sapeur pompier ndax bi biir bi amee toog nañ ñaari waxtu di leen woo ñëwunu kon ñoom am nañ ci responsabilité bu mag a mag beneen bi mooy oto bi nga xamante ni def na accident bi Range la sport SVT Cheikh jënd ko ci atu 2017 ci l'Africaine euh, automobile yàlla na ko yàlla yërëm Serigne Saliou Amar def ci soc ci cardan bi ak el bi ak phare bi bi mu defee loolu AXA assurance fay 22 millions pour ñu réparer oto bi bi ñu fayee 22 millions pour ñu réparer oto bi cardan bi nga xamante ni moo jàpp ci disk bi moo daldi rocceeku te lii moo taxoon ñu fay euh, naar bi nga xam ni mooy zoo hasard lañ ko fayoon pour mu defar ci oto bi defu ko oto bi mbëkkul saaraanul amul lenn loo xamante ni def na ko loo xam ni war nañoo mën a wax ni ki doon dawal moo ko def ba léegi ki doon dawal gendarmerie dégluwu ko audition pour xam lan moo waral accident boobu loolu it di mbir moo xamante ni jaaxal na ñi nga xam ni ñooy jegeñaale Cheikh Amar euh, beneen bi mooy ki nga xamante ni mooy ministre de l'intérieur bi affaire bi amee man woo naa ko téléphone personnellement jëlul ma envoyé ko message wax ko li nga xamante ni moo am moom it réagirul ci lu mel noonu kon bu ñu toogee ñu naan euh, directeur général muy général euh, Mame Thierno Dieng jël na en charge cheikh du ku ñuy jël en charge parce que cheikh du fuqara yàlla suturaal na ko yàlla dimbali na ko ma foog ne réew mi mu mel ni Sénégal di réew moo xamante ni réewum démocratie la war na noo mën a procureur war naa mën a autosaisir ci lu mel nii ki nga xamante ni mooy responsabilité bi mooy Zo Azar mi nga xam ni mooy directeur général bu l'Africaine automobile ndax oto bi mayewu ko saraxewu ko oto bu nu jënd la lañ ko ci santoon pour mu def ko defu ko parce que lii du loo xamante ni pneu bu toj la wala loo xamante ni el bu fàq la wala leneen ak leneen lii ci cardan bi la rocceekoo pneu bi daal di fàq daal di dem ki doon dawal dawalu sax lu ëpp 100 wala ay 120 wala 130 Euh, bu fii may wax ak yow nag gendarmerie jëlu ko auditionné ko pour waral pour laaj ko lan moo waral accident boobu ah beneen bi it mooy ambulance bi nga xam ni jël si na ko parce que man bi affaire bi amee fa la ma fekk ambulance bi amul benn soin boo xamante ni occupé na ko ci biir loolu it lu lu lu lu lu ñaaw la ci réew moo xamante ni dafa mel ni dafa dafa dafa dafa tolloog réewum Sénégal ñu wax ni réew mu am démocratie la kon autorité yi nga xamante ni ñoo ŋànk loolu amul benn responsable bu ñu ci def li ñu ciy wax rek mooy ki nga xam ni mooy sëñ Muntaxa di xalif général des Mourides bi affaire bi amee yebal na ay tànkam yebal ay loxoom yebal ki nga xam ni mooy léppam di sëriñ Bachir Abdou Khadre mu def déplacement ñëw hôpital seet si ko démb ci lu tollook waxtu di ko jottali ñaan ak ay sant ak ay ngërëm li nga xam ne seex def na ko ci yoonu murit ak ki nga xam ne mooy wasilaam di sëriñ seex saaliw ndax bépp moyen boo xamante ni euh, laaj na ko rek sëñ seex saaliw def na ko ci kon nag négligence autorité yi nga xam ne ñooy autorité Sénégal euh, ñu ko defee ci ñëpp moom lañ ko defee ci Cheikh parce que accident boo xam ne woo nañ la 18 heures euh, sappoor nekk Diourbel man ñi ngi ma woowee Touba moske ñëw naa toog lu mat ñaari waxtu yoo xam ni sàppool ñëwul ci accident boo xamante ni li ñu ñàkk ci deret kenn xamul nu mu toll ñoom ñeent ñu ko def chauffeur bi deful erreur ñi nga xamante ni ñoo nekk ci oto bi defuñu erreur ki nga xam ni mooy responsable bi nga xam ni mooy def erreur te yaakaar naa bu fekkoon ci réewu démocratie lañ nekk jàpp nañ ko dugal ci kaso bi mooy Joe Hazard bi nga xam ni mooy euh, directeur général bu l'African Automobile parce que AXA assurance moo ko fay 22 millions pour mu réparer oto bi nga xam ni moom moo ko jaayoon bees lam lañ ko ci santoon pour mu def ko defu ko ci oto bi amul problème leneen ak leneen ak leneen problème bi mu amoon bañ yóbbu ko fa problème boobu defu ko mu ngi nii seere bañ na dem si yàlla si pono bi moo rocceeku ci disque bi jóge fa fàq ci cardan bi lii moo indi choc bi te am na ci loo xamante ni Cheikh du n'importe kii ci dëkk bi ndax gis nañu ni euh, lenn la Serigne Touba deful muy mbay te chaque année moo koy représenté ko teewal ko fa loolu defal ko jullit yëpp jumaay Tiwaawan ji Alaaji Abdoulaye Sy Al amine yàlla na yàlla dolli leeram ci barkeem Cheikh Amar lam fa def du sax lu nu war a mën a wax waaye nag Sëñ Blaat doon na wax naan lu baax jant la mooy feeñal boppam kër diine yi ñëpp la yemale ba ci jàngu bi def na fa teraanga kon kooku du n'importe kii boo xam ni dañ koo war a négliger ci réew mu mel ni Sénégal gis na nag yenn organe de presse yoo xam ni toll nañ fi ay jamono doon nañ ko attaque attaque yooyu plainte yooyu demoon na ci loxo justice ba léegi yemul fenn kon nag ñu xam ni cheikh ñi koy xeex ay nit lañ ñoo xamante ni ñu ngi fii demuñu fenn waaye nag sampub sëñ tubaa kenn mënu koo daaneel ndax lii am baatin la ndax yaakaar naa réew mel ni Sénégal koo xamante ni lim am ci ay ci réew mi ak lim def ci réew mi su ko jëloon tey ñëpp jàpp ci kon ku mel noonu waruñu koo négliger ay jël nañ ko en charge ay nangam seex du foqara man mii rek bu ma feebaree clinique laay fajoo duma dem ay principal wala may dem feneen am na loo xamante ni dafa ñaaw te ñi ngi koy ñaawlu man en personne maa jël samay engagement parce que man du ma gan ci cheikh sama xarit la lépp loo xamante ne xewla naa ko moo fay jiitu moo fay njëkk kon maa jël samay responsabilité ndax damaa fekkee du lu ma kenn mën a nettali bi ma ñëwee it li gën a ñaaw mooy nga tiim nit sauvé woo ko jëloo sa yére upp ko wala nga def leneen nga tiim ko di ko foto yaakaar naa ne am na loo xamante ni mën ngaa dagg yàpp nit ki di ko lekk parce que boo tiimee nit xalaatoo ci moom simi sa yére nga upp ko wala nga def leneen nga tiim ko di ko foto yaakaar naa ni jàppal ni bu doon sa waajur la wala sa sœur wala ku mën doone loolu dañ koo war a jeexal ci réew mi parce que am na jëf yu ñaaw yoo xamante ni dafa war a jeex ci réew mi léegi nag euh, problème bi mooy wut nanu ki ñi nga xamante ni ñoo war a saytu oto bi lan moo indi accident bi ñoo ñooñu ban xoolee xam na ni lan defar loo ki nga xamante ni mooy Zo Azar Zo Azar defar ko déposé nañ plainte mais accident bu mën a am war noo mën a déglu chauffeur wala ña nga xam ne ñoo nekkoon ci oto bi parce que chauffeur bi yàlla defal defal na ko jàmm sant na bu baax génn na ba mu ngi dox ay soxlaam ki nga xamante ni mooy Bamba Faye génn na ba mu ngi doxee ay soxlaam ki nga xamante ni mooy Doudou Diallo moo ci am tuuti blessure Cheikh it am na ci ay tuuti blessure mais sant yàlla bu baax parce que ñoom ñëpp ñi ngeeg seen xel ñi ngeeg seen sago ñi ngi ak ñi ñu war a waxtaanal kon yaakaar naa ni procureur de la république yéex na trop ci mbir mi nga xamante ni moo am parce que waroon naa jël ay matuwaayam ak ay responsabilités am parce que dañ ko fi teg pour lépp loo xamante ni am na mu jël ci ay matuwaayam.